Reug Reug la xool Cheikh Reug Reug a ngay sotte ko Cheikh koy cey ji làmb Reug Reug ci 2 toj na wala wi cax ndaysaan non du ci mën a ñàkk waaye nag faw faw ku nekk andi dooleeg bëre moo gën a wóor am na solo benn morceau bu weex lay duri ak sangoor la bu la neexee mu ngi wër moom géew bi mu ngi koy joxaat seex bal xool ma bal ba cey lam day sukk pour takk ko taala xanaa mën naa déglu li ñuy wax wala wala waxi secret la. cinq minutes jël si waat ci beneen cinq minutes bi ci beneen quinze minutes bi si jël amul ba tey ñu demaat prolongation dix minutes donc yëpp da nga koy calculer mais saa baar bi àttee rek da ngay da ngay da ngay stoppé doucement doucement rek doucement ñu lijjanti ko. laa ilaaha illallaah Gris dem ca géew ba. moo faal xool ma faal ni mu ñaqee xoolal daawur père père daa mel ni yaram mi tàng na fi mu nekk de. waaw waroo dem nag nga ñu ñu ngi dernier réglage yi fii nag yaram dafay daw comme tout tout tout le monde ah ñu nekk ci kaw sax ñoo gën a sonn nekk suuf. mais père fu mu nekkoon fan yi non père dafa tukki woon rek. da nga demoon Paris wala. waaw dama voyage waaw dama demoon suuf Paris euh, def euh, def le mois de Ramadan alhamdulilah rabbil alamin ah bay doog a ñibbi si biir si guddi macha allah mais loolu nag bu mu jaaxal bu mu jaaxal kenn ah. parce que euh, aussi mbër bi ça fait six mois muy préparé combat bi donc 21 jours ou 23 jour la absenté mais lépp ñu ci yoon équipe face tamit euh, équipe bu rëy la liggéey nañ li ñu war liggéey di ñaan yàlla mi may ndam mooy ñu ndam. ak seen dal xam nga seen dal. leeral la. ak seen dal la nga ne. Babacar lan mooy seen dal. seen dal bi. bu dee dugub eh dugub takkam dugub Talla Ndiaye takkam dugub. mbete mbool. waaye lee mooy takkam dugub. xam nga mbool Babacar rek. maa xam mboob xanaa ko xam dugub tuuti takk kay xam mboob. man na mboob ba tey. mboob naag sax. Babacar léeg-léeg. bay naa sendal gaa ngay dem. lee am ngooñ lañ ciy am sendal. gu mag day doon gu mag nga def ci ngooñ yéen a ko kër ga Talla Ndiaye boo bàccee ngooñ mi boo bàccee gerte gi ba bees ko Talla Ndiaye sendal gaa ngay dem kon nag jàppal na làmb ji moom dem si na ci réew mi Reug Reug yor na takkab dugub Gris 2 yor nag sendal cey ji làmb nappante bi ci géew bi Talla nappante bi ci géew bi Ibrahima Mbaye wax ak moom ñaari mbër yaa ngi ñëw la ilaha illallah Talla Ndiaye xam nga ñaari liggéey la ñuy dee taala entraîné nañu ba nekk ca Reug Reug a ngongu ee eh, taala ñaari xale yi liggéey nañu masha Allah taala bul jaawale lii taala ee eh, taala tey la samedi 15 juin 2019 poulet wu Khadim Ndiaye baa mi ni sàpp ñoo ko andi Pulawul Tafa Gueye Gris Bordeaux Papa Sow ñoo ko andi ko muy Gris de la ilaha illallah Talla Ndiaye Diawara laay bañ ñu seet Gris de nin la wala niino wéeru na jóg leen waaw gar est que du am pile ah waa ñu ngi xëccoo fu ñuy taxaw loolu yàgg na ci làmb fii laay taxaw dañu koy pile faw ñu pile ko waa Dramé koy pile waaw waaw Reug Reug gagné na pile ba eh une minute de silence bi sànq Ablaye Diouf lañ ko doon defal di arbitre yal na ko yàlla yërëm taxare ko aljana moom bépp jullit wallahi addina ngongu kenn saxu fii am na nu ko gëri doo sànni mu jéggi ko leen di woo Talla Ndoye Talla nuyu naa ñëpp Talla taala seeru le mooy film Babacar ay wax seeri Lebu Njaay mi ci géej way Lebu Faramareen bi soppay Wally Seck la Lebu Njaay Dramé ngi wax ak ñoom de li lamb bëgg ak li mu bañ eh arbitre bi day soufflé nuyu naa la mami Ndooy ak sa yaay soxna Penda Jawara sunu yaay ah Talla Ndiaye am na lu xew de arbitre yaa ngi waxtaan. wawaat na ko ne toppal loolu Dramé ngi wax ak ay siisam de ana Youssou Ndoye maa lay nuyu di nuyu sunu yaay Penda Diawara la ilaha illallah ca Sacré-Cœur avertissement waaw am na lu mu def am na lu Reug Reug def tel avertissement arbitre lay soufflé bu leen ko jaawarale loolu lay bañ eh Aliou Thiawane yi borom marché Asalem wala borom marché Thiaroye bu Yankaaw tey moom a solal maa ngi lay nuyu taalibe sëñ Babacar Si bi mu yaa ngay bu Yankaaw ca marché Thiaroye yi tey moom a solal maa ngi koy giri den koy topp Reug Reug di arrière ñaari fausse ñaari garde normal ku ne ngi gisal sa tànku càmmoñ giree ngay diree ko topp di dox moom wet Talla Ndiaye la ilaha illallah combat ngi eh combat ngi ni ndeysaan ñaari mbër yaa ngi Samba Kara maa ngi lay nuyu Reug Reug sànni na góos Samba Kara maa ngi lay nuyu ca ca géej way di la jaal sa way juru ci gënu génn àddina fan yi sa tanta xeex danañu dajale la ilaha illallah rimka ku tudd na ko fàtte xeex nañu daje Gris 2 sol na ko Reug Reug jàpp loxo droitam Reug Reug sol nañ ko waaye Gris loxo droit ba jàpp na la ilaha illallah jàppante nañu sa kaw eh taala jàppante waaye Reug Reug Gris waay combat bu yàgg yoon vingt ans mu may ñu lii moom Luc Nicolaï dafa too amateur yi dara kay xanaa eh taala la ilaha illallah roofoo jàppante roofoo jàppante teglonte Gris 2 à gauche Reug Reug à droite Gris 2 rocc na loxo gauche droite waaye Reug Reug jàpp na ko Reug Reug ñaari loxo yi jàpp nañ Gris 2 ngay ma fu mu dugal loxo gauche am Gris loolu wóor na Reug Reug foofu mu jàpp ci yow laa ilaaha illallah ñaar ñu mës a daanooy bëre ndeysaan Gris 2 huit combat huit victoire Reug Reug treize combat moom Reug Reug onze victoire ñaari sans verdict ñu ay xale yu am mérite tey ndeysaan lig di ko lay wooleen fii ci arène nationale bi tëggal leen combat bu toll nii drapeau Bougane Gueye Dany borom des médias ancien patron Talla Ndiaye Talla loolu xam nga ne tey a bés ci bés yi maa ngi koy nuyu Babacar tani bugaan di nuyu Massamba Mbaye sama DG Massamba Mbaye DG ku baax Alima Ndione Alima Ndione Cheikh Sarr sama Cheikh Sarr ñoom ñëpp maa leen nuyu waat eh Ndiaye Doos ñoom Ndiaye Doos waa D-Media Saliou Khoule sama gaay yëpp nuyu borom animation bu ne gis naa fi Fatou Abdou Ndiaye ana jigal waaw sama xarit sama doom day ñoom Papis ndeysaan loolooy D-Media kër ga waay waay sa kër ga waay kër gu neex a ngongu Ahmed Aïdara ak Mansour Diop waaw waaw duñ leen fàtte Mantoulaye Sougou Ndoye lépp ci des médias laa ilaha illallah am na mami Samb sax yaakaar naa ci ak madame Dramé madame Dramé kenn du ko fat sama xarit la kon groupe des médias tey yéen a moomee la na ko ñu eh, ko la ko def tour bañ laa ilaha illallah eh rek rek na ko booti tuur Gris 2 bañ wañ booti tuur mu bañ loolu na ma ilaaha illallah cey ñaari xale yi ku daan combat bi xanaa fi VIP nañu wax ak yow Reug Reug yaa Gris 2 ku ci daan waa Caaroy seen doom yaa ngi Reug Reug Caaroy Gare sur Ibrahima Faye Bees borom pay-per-view bi nuyu naa ko waaw waaw waaye duma fàtte Calis Pape Calis Faye borom Leewtoo production waaw ndeysaan ñu koy nuyu di ko ziar di nuyu groupe Leewtoo production yëpp nday Kumba Fall ñëw na tey yàgg ñëw na moom moo maa nay dawal waaw loolu am eh ñaari mbër yi jàppante nañu. Balla Gaye ca taal bi sëñ Si maa ngi koy nuyu laa ilaaha illallah jàppante bi tar na jàppante bi tar na ñaari xale yi jàppante nañ bu kenn jaawale Aliou bëgg naa la de mention spéciale tey yaa solo day atte daraame day atte daraame day atte Biré Ngay dem ca géew ba Reug Reug wàññi na ay gàllaajam bari na lu mu takkoon te ndig joxe na ko la ilaha illallah ñu nga ca rek ñoom ñaar nuyu naa leen de Aliou bu Yankaaw ca marché Thiaro yi moo ma solol tey bi maag Talla Ndiaye moo ma solol taal bi suñu Babacar Si bi maa ngi koy di ko siyaar di ko ñaanal jàmm ñaari mbër yaa nga ca nag waxoon naa leen ku ma suñoo daanu ñoom ñaar victoire Gris 2 donateur Reug Reug dajeeg moom Reug Reug 13 combats 11 victoire 200 verdict loolu la ñu def mënuñoo daanu mësuñoo daanu waaye li ma yaakaar tey foofu kenn daanu xanaa li fi gën a kon si def du ngeen ko ñaar yaakaaruma loolu man cey bi combat doomi caaro yi doomi Fass ak Medina ñu laajal leen fii esat wala boog arène nationale ndeysaan jàppante bu tara tara tar bëre wu ñu doon ñoom ñaar dañoo jàppante rek ndeysaan bii combat yàgg nañ koo waaj yàgg nañoo waaj bii combat fël war mën naa am ci combat bi de Talla Ndiaye fël la war la mën naa am de. Reug Reug day bëre loolu mu ngi koy pousse moom Reug Reug Reug Reug koy pousse Gris 2 di arrière tuur la koy def dan ko laa ilaaha illallah oo oh, Reug Reug dan ko jël bu rëy rëy rëy ko daan rëy ilaaha illallah oo eh, Talla Ndiaye am jërëjëf Reug président maa ngi lay ziar tey ñu gis ni mu taaroo ak ni mu rafetee démb ñu dégg sa déclaration nga ne boo amoon dogal kenn dootul bëre fenn fudul fii lu tax nga wax loolu. li nga gis fii. loo gis. ah macha allah de. jeex na teg ministre bi ci boppam ba mu yegsee ne na amul combat bu xejul fii ba Demba Diop mille place la fii 22000 places assises la incha allah mhm. combat yëpp fii lay amee mhm. ñu ngi dégg benn promoteur buy wax ne mooy ki tëgg Modou Lo ak Eumeu Sène mu ne dafa daf ko bëgg a yóbbu Léopold Senghor yéen en tant que ay kilifa loolu lu ngeen ci xalaat. fii lañ nar a tëggee combat yëpp incha allah. Modou Lo Eumeu Sène fii lay amee tamit. su ci yàlla andee. dangeen ngeen ciy jël seen décision pour ñu tëgge ko fi. Eh, soo nekkee ànd ak ay nit. da ngeen di waxtaan ba juboo mais am nañ argument yu solide yoo xam ne suñu waxtaanee ak promoteur bi combat bi nañ ko indi fii. kontaan ci yow. fii la ëppee.